ahasubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaaniirahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi seydina walaana muhammadi wa ala alihi wa sahbi wasalama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ngi nuyu bokk yi ñuy teewlu yëpp si turu jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda ñu ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ak dundam lool te wéral ay cëram mën lii mu am yëpp bëgg ko liggéeyal maam ju baax jaag wa jërëm yu baax ya suñ borom kàttanal ko ba mu def lu kawe njortam tendu ko taalibe yëpp di jottali nag ab nuyoo bu bàyyi ko si moom akub siyaar mu jëm si jëwriñam ji Cheikh Modou Mountakha ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba mu àggale naa li Seexul Xadim yëpp di nuyu njabootug sëñ Tuubaa yëpp fu nu mën a ne waaye nag di nuyu ak di jottali ay cant ki ngërëm si njabootu boppam gi di njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall. di leen sant si li nu weesu lépp ak fii nu toll rawatina ndigal lii nga xam ne ah si moom la nu nekkoon fan yii muy ndigalul liggéey boobu di liggéeyu tabaski yi sëriñ bi di wax ne mu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ay taalibe lañ te seen jëf ak si fi moom ba liggéey bi mel nii nga xam ne noonu la ko ñëpp gisee muy liggéey boo xam ne ni yoon yu baaxoo rek moom faw xonam mboolem lu fi mas a jaar si ndigal si sell ga ak tedd ga ak ak mat ga euh, nga xam ne dajale na yooyu yëpp te li tax loolu yi am mooy pas-pas ak pësteef bi nga xam ne ak yéene ju rafet ji nga xam ne taalibe yi fu nu mën a ne am nañ ko ci liggéey maam Cheikh Fall jii nga xam ne mooy ndigal yi bàyyi ko kër sëñ Touba ak ci fi ñoom sëriñ bi di wax ne liggéey bi nañ ko taxawoo sedd na ab xolam. ka ko ka taxoon mu jógit muy sëriñ Tuubaa Cheikh Modou Mountakha ba nu ko ko jébbalee moom it sedd na ab xolam sant na leen gërëm na leen ñaanal na leen seen bi wax ne yàlla na nu ko teewe at yu bëree bëri te kenn ku ne yëg sa bopp ak yokk goo xam ne jëfe ndigal lii mm, xam nga ne si nga ko jëlee ah, jataay bii nag li ko waral mooy ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko nag si Cheikh Modou Mountakha tey si bëccëg rek rot jëw jëwriñu Cheikh Fall ji di sëriñ Amdi Fall sëriñ Modou Mbenda muy ndigal loo xam ne xañ na sax mën nañ ne miin nañu ko waaye ah, taxaw woon nañ ko daaw euh, si ndigalul Cheikh Modou Mountakha muy bisu Zikrullah ah, sëriñ bi wax ne bis boobu yi nga xam ne moom la santaane woon daaw muy ñaar fukki waxtu yee ñeent vingt quatre heures yi ñu amoon si foofu si Darou Minam muy bisub Zikrullah boo xam ne mbooleem kuy tudd yàlla daje woon na fa njabootu Seera Faal gépp ak njabootu Sëñ Tuubaa gi sëriñ bi jot na ndigal si Cheikh Modou Mountakha ñu taxawaat bis boobu yi alxames si suba ji bu dellusee incha allahu muy bisib suba bu nu tabaskee incha allahu bu dellusee sëriñ bi wax na ne eh, ndigal jot na ndigal si Cheikh Modou Mountakha ngir nu taxawaat bis boobu yi nga xam ne mooy bisu Zikrullah eh, foofee sa kër moo Modou Mountakha eh, li nga xam ne moo si yees rek xañ na ngir amul ay soppiku yu bari li si yees rek mooy sëriñ bi dafa wax ne ren dafa bëgg nu tàmbale ko juróom-ñetti waxtu si suba euh, taxawu ko ba juróom-ñetti waxtu si ngoon muy huit si suba ba huit si ngoon kon dafay mel ni ab yendu la moom la sëriñ bi bëgg nu yendu ak moom yendu ak njabootuk sëñ Tuubaa gi yendu ak jullit yi ñu yendoo tudd yàlla mu kalimatu laa ilaha illallah mu nu ko taxawoo ba ngoon nu sukk fi kanamam mu ñaanal nu nu dellu toogaat di xaar ndigal Sëriñ Ahmadu Muntaxa nag da saa boole ni ndigal li day cofu ko mu ngi digle fépp foo xamante ni fii àggoon na fa daaw mu ngi sàkku mu weesu ko ren maanaam soppiku gu si waxtu yi tekkiwul ni danoo soppi lenn si taxawaay yi si amoon sëriñ bi nee nan nañ ko yaatal bu baax fépp fu tuddkatub yàlla ne képp koo xamante ni kii daal yaa ngi wuyoo maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na mi ngi lay woo alxames si suba ji bu dellusee si pencum daaru minam ñi nga xam ne ñoom la sant ñu taxawu liggéey boobu nan ko defe woon daaw ndigal laa ngi si ñoom dañ koy wéyal muy maam Cheikh Fall moom Chérif Assane Fall sikurulaahu dana jiite liggéey boobu ànd ko ak kuréelu sikar yëpp nga xam ne ñoom lëkkaloo nañ ci genn buum ñu ànd ko bokki taalibe yi su ko defee nanu ko taxawoon daaw kenn ku ne taxawaay ba nga amoon nga fas yéene koo yokk kenn ku ne eh, yitte ja nga amoon nga fas yéene koo yokk ba sëriñ Tuubaa ma du Muntaxa li mu si séentu lépp ak li mu si yaakaar mu am ko na mu ko bëggee loolu mooy ndigal li nga xam ne moo fi léegi sëriñ bi waxoon ma ne ma naa ko yaatal ci bokki taalibe bi yëpp ñu xamee ko noonu kon bisu sikkurullah bi alxames lay doon muy alxames si suba ji bu dellusee incha allahu juróom-ñetti waxtu ci suba muy huit ba juróom-ñetti waxtu si ngoon muy vingt ñu daje sa pencum Daaru Minam biir kër Cheikh Modou Mountakha ñu taxaw baatu tur yàlla woo yi ba mu àgg sëriñ bi teewlul ko boppam ñaanal nu nu delluwaat toogaat di xaar ndigal sëriñ bi mu ngi si soññi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi fu nu mën a ne ñoom ñëpp kenn ku si nekk na jottali ndigal li mu yaatu mboolem fu taalibe nekk mboolem ku mën a tudd yàlla ñu dikk akub yar ak i teggin akub dal ba nanu ko defe woon daaw ñu defee ko nu ko raw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.